ay fan a ngi nii jaaykat yi mënuñu ko teg bët mel na ni suukar dafa manqué ci marché bi Mouhamed Diallo nekk ci butigam di ko dëggal moom ak i ñoñam. waaw dëgg la dafa manqué fan yii yëpp moom ñu gisuñu ko dafa xaw a manqué ñu ne te xam naa ne moom loolu la loolu noonu lay mun a demee. moom man giñ naa jënd parce que si marché bi moom bu fa laajte rek dañ lay naan amuñu suukar. tey laa jëndi vingt huit mille sac. fan yii yëpp suukar amul de parce que man instant yii nii dama koy wóor suukar. wut naa ba mu sonn mais amuguma suukar suukar daa manqué ci dëkk bi esaay ni mu rax si dolli ni bu daan nañu ko jëndee ci njëgu juróomi junni yu teg juróomi téeméer lu ci ëpp juróomi junni yu teg juróom benn téeméer lañu koy amee njëg li yokk teg ci bénéfice bi néew lool. prix bi moom 27 750 laa ko mujjee woon jënd bi ma koy jënd. kilo suukar 575. ñi stocké woon lu bëri tey ji ñoom ñoo dese ñoom dañuy profité am na ñoo xam ne sax mën na la ko mille 28 500. xam nga loolu moom boo ko jaayee yow doo ci am dara pertement lay doon ci yow ba jëndee saako sukar vingt huit mille nga sol ko nga génnee si sa mbuus yi ak temps bi nga ciy rey loolu doo ci am dara pertement la te saako sukar bi cinquante kilos bi di ci mot rek mais xam nga rek sukar ñàkk ñàkk da nga ko mënul ñàkk a jaay rek mais defaa amul amul dara rek xam nga loolu moo tax amul dara mais dañ ko xam nga rek bitig soo amul suukar doo mën a jaay yenn kii yi. Thierno Diallo moom it ñu fekk ko ci boutique am mu nekk mom mbir mi gisu ci lenn ludul dakal ndayum soukersi ndaxte pertement la ci ñom ñi di jay kat yi yang koy jënde 28000 nga jënde mbuu 500 mu nekk ñaata 28500 mu dess 1500 legi yow boko jaay 600 lekko ci dara 1500 nga ci am legi bu contrôle prix ñew fekk nga jaay ko 625 eh, wala 650 ñun la yow li nga jaay jaadul ñu yobula taske la lo xamanteni atanoko kon lu gën gaaw kay ne leen kay ñu bañ a jaay suukar moo gën ah loolu la de ma ma ba amul bénéfice suukar amul bénéfice suukar amul bénéfice de vingt huit mille ngir mil cinq cent te yow doo lekkee dara boo ci lekkee balaa ngay jaay suukar bi nga lekk sa xaalis loolu la ginnaaw yokkute njëgu ceeb bi ak diwlin bi ci fan yi ñu weesu léegi suukar si la bu ñu sukkandikoo ci kàdduk ñi di jaaykat yi gis ko fi ci marché bi sax fi mu toll ni doon na lu jafe xanaa rekk li des ba jeex rekk mooy ñu ci bëri jàpp nañu ni dañuy rekk far dal di bàyyi lii di njaayum suukar